Eh, hip hop beeg yàqu waay parce que gis tit tit tit waaye hip bu mag bii war na maa woo naan ma yaa ngi def ci hip hop bi lu nice mais fexeel man a xaw ma kan suñu diggante mu nice waaw yow man mi bëgg mu ñaaw nga waaye yow kii neexul ah du du ma ko wax. kon man bàyyi ma wax tur bi. non de mais moom na xam ni waaye yow kii de kii de maa wax turam waaye. joxal tur bi rek joxe ko suukaru naa ma fexeel xaw ma man ak kan mu naaj waaye man mi bëgg bu ñaaw man dina man mën naa fexe bu naaj. waaye yow avant may wax turu kenn yow wan lirikal seytaane nga yow yow ndeke wan lirikal yaa woo ak a bes woo nga ak blende woo ay matamatat yooyu di leen yow wan kii looy mel ni kou ne fin de carrière nii mel ni paan yi di boole nit ñi di leen jubóole hip hop bi du ngeen eh, UFC la. ñeneen ñi waay waxuloo yow lu tax yow doo ko. xanaa nekkul loo moom bu gisee bi bi moom bu gisee vidéo bi bu génnul wax dinaa génn wax ki ma woo naan ma yaa ngi def ci hip hop bi du nice xam nga hip hop bi yow chaque fois nga def ci du nice mais fexeel man a xaw ma kan ñu juboo yow mii ma woo léegi man nekkuma fi pour ngeen juboo man bugguma ngeen juboo yéen bu ngeen juboo baaxul ci bopp bi ngeen mel ñu né fin carrière ki di contenté, ki di joy wala ni Doff mom gëna ñep trompé dof ndaka fa di filmer ñi di waxtaan ñi di kaf di kañ commencé kaf man xàmmeetuma ni Doff muy kaf ki la Qui la mu dem bay kaf mani euh sa page Instagram nga def fa post ne yaa wo wala 18 heures dina def vidéo wax kan moom ma woo ku mag la ci hip hop bi dafa xuloo dafa am ak problème ku mu an man maa bëgg daal di bib son waa tari allahu akbar waa rapa jo waa ana waa rapa oh, da bi bàyyi na leen bi eh, mataar la kagulaar xurum xax noonu Karim moom bàyyi na Karim moom kii keneen waa ji waa ji nekk fee waa ji sama soxna moo ne sama jabar Mollah Morgun ay waay Mollah seen affaire bi yàqu na de li ngeen fi bàyyi woon héritage bi boo yi ngeen bàyyi ak bi ñu ngi jubóo te Mollah jubóowul ak kër gi moom xulu oh ooy lom yana maar yana waa yana maar ñoo ana waa <laughs> ngi place de la nation ñu ngi fee ñu ngi place de la nation waaw ah rab bi ah rab bi yàqu na ci moom waa bàyyi waaye leen mbele mbele gi raab lañ wax na naa fekk yi taxawee ni raab lañ wax public bi loo leen soxla si moo <laughs>